mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ak ziyara képp ko xamné ne ngi ci jotaay bi ci sa tour ak ci sa sante di jital nuyo bi ak ziyara bi nak diko tek ci ki nga xamné moy Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Sall jotalel ñu ko mboolem ki gi ñi ngi koy nuyu koy di ko jox wàccuwaayam ndax sunu sëriñ la ndax doomu cheikh ibrahima sall radiallahu taala anhu ñu ngi kenn la ci kër gi mu yàgg lool nag nekkoon tàmba fa ba na lu rafet ñu ngi nuyu Cheikh Sok nga xam ni moo yor euh, lépp luy organisation wu xadara bi ñu ngi nuyu Cheikh alasan Thiam di kenn tamit ci magi xadara bi ci taalibe yu jiitu yi fii euh, doon président Maslak ñaar ñu ngi nuyu sëñ Abdoulaye Ibnu Abbas Dieng moom itam kenn la ci xadara bi di nuyu daal mbooloo mi yëpp di ziar ñëpp di tatagal ñëpp ci bis bu tedd bii nga xam ne bis gënu ko rëy ci ñun ndax bis la boo xam ne bisu Cheikh Ibrahima Sall radiallahu taala anhu bis la boo xam ne du ñu ne dañuy commémorer waaye bis la boo xam ne dañ ci jiital def ay ñaan ak i daawaat su ko defee dolli ñaanal yàlla kii di sunu wasila di Cheikh Ibrahim fa mu nekk yàlla yokk ko leer te itam yàlla taas ñu ci barkeem moo tax suma ma juumul jiital nañu kaamil bi ubbi ko euh, bis la boo xam ne bu rëy la ci ñun ndax bis bi ñuy delloo xam ñun ñooy ñen te ci xamleeg gi nga xamne Ibrahim cheikh ibrahim sall radiallahu taala anhu wala bok mani wirasatu muhammadiya ni mu nekké ci ñun fexé delu ci ñu xamal ñu suñu bop xamal ñu suñu borom motax bis la bo xamne fokk mu nekk bisu fàttaliku lolu mayat ñu ñu gëna namat li nga xamne mom lañu andok cheikh ibrahim sall radiallahu taala anhu te mooy rek li ñu ànd woon ak moom muy lislaam muy imaan muy ixsaan loolu lañu nàmpal nampal depuis bi ñu jokkoo ci moom loolu la yare képp ku mu fi nekk te itam ci taxawaay boo xam ne xëy na ngoon thème bi dina ñëw ci loolu waalamu anna rasulullahi fiikum loolu la Cheikh Ibrahima nekkee woon képp ku mu àndal dafa ma daan wax ne alburi man awma ma taalibi ay ñu ma àndoo liggéey ci toolu lislaam toolu imaan toolu ixsaan laa am ay àndandoor ci yàlla noonu la ma ko daan waxe ba tax na itam jëflanteem jëflanteem ak mbokk yi ku ko xool di nga gis ne léppam dafa méngoog ni yéen salaay salaam daan jëflanteeg benn njabootam benn ay doomam benn ñi ko yàlla baaxe mu àndandoon ak ñoom ci jamonoom waaye nag ak taxawaay ci yërmande ci lewet ci ndimbal ci defar képp koo xam ne yaa ngi woon ca jamonoom moom yonente sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ibrahima tamit noonu la nekkee woon ak xeetu yonent yàlla Muhammad bi fii rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñooy asidqu saadiqin waaye rawatina ñi nga xam ne mooy njabootu boppam ñi nga xam ne ñoom mooy njabootu deretam mu nekk àndoo bu am solo bu rafet bu matale nga xam ne defe naa taabal rond ay taabal taabale rond du tax sax mu war a mën a jeex ci ñu mën a wax loolu waaye dañ ñun dañuy sant yàlla di wax fa lilahi alhamdu wa shukru bi nga xamee ni yàlla may nañu ñu àndoog moom mu defar ñu yar ñu jox ñu xam-xam def ci ñun ay mbóot tabax ñu ba nga xam ne lii muy liggéeyam mu doon liggéeyam fu ñu munti nekk ñu ngi koy continuer fu mun ti nekk ñu ngi koy jëflanteeg jaam yi ba dañ ciy wax alhamdulillahi rabbil alamin fu ñu dem gis nañu liggéey Cheikh Ibrahima Sall ci ñun mooy ci sunuy mbokk daan na wax Alburi mbaax gii ma def ci yéen fexe leen léeg-léeg mu law ci seeni mbokk ndax dama daan toog léeg mu gëj maa gis ma ñëw mu ne ma Alburi foo nekkoon ma ne ko ah góor gi dey suma woyu jur day moo ma yónni woon ci mbokk gi fii maa ngi woon ci te njaboot gi fii mu ne ma waaw loolu nangu naa ngànt googu ndax lii ngeen jëlee fii ci mbaax fexe leen mu law ci mbokk gi kon loolu danaa la ci nangul ngànt kon ma ni mbokk gi yëpp seedeel nañu loolu liggéey Cheikh Ibrahim ci ñun ba ci son papa njëlbeen bi xawoon na sax am sikki sàkk ci jokkoo bi ma jokkoon ak Cheikh Ibrahim waaye mujj gi taal na oto euh, jóge na këram ñëw ba fii ziar ci Cheikh Ibrahima de la anhu ngir sant ko njukkal ko ci liggéey bi nga xam ne mottale na ko ci ñun kon loolu ma ni liggéey Cheikh Ibrahim feeñ na ci ñun ci sunuy mbokk waxuma ñi ma bokkal rek waaye sunu askan ndax su may bàjjan ñëpp fii lañ nekk euh, fii lañ jëlee euh, su may cousin su may rakk ñëpp fii jokkoo nañ ci Cheikh Ibrahim ba daan nañ ko ziara ziara xaasa ñun sunu mbokk ñun sunu askanu njabootu alaaj Ousmane Ba feeñ na tamit ci fépp foo xam ne fala ñu nekk di liggéey fuñ ci dem musuñu faa tuuti nit ñi ñoo ñuy gis gisee Cheikh Ibrahima ci ñun teg ñu fi ñu war a teg su ko defee loolu tam ma ni liggéey Cheikh Ibrahim Sall radiallahu taala anhu la ba fële ñu nekk ci aéroport ku ma fa fekk da ngay defe ni sax man maay imaamu jàkka ja loolu laay liggéey foofu ci service météo aviation civile ndax ba ci directeur général bi président conseil d'administration bi directeur yi fa nekk yëpp rawatina agent yi képp koo gis Alboury la ñuy wax imam Alboury la ñuy wax marabu bi Alboury arbitre loolu liggéey Cheikh ibrahim saldal ndax Abbas Dieng miy toog maag moom ñoo ñëwandoo ci xadra bi moo ma indi sax ci xadra bi Abbas Dieng mii moo ma gindi ma ñëw fii ci xadra Cheikh ibrahim Sall radiyallahu taala anhu ñu ñëwandoo fi nag jokkandoo ci guddig laylatul xadri ak Cheikh Ibrahim 1996 kon li may wax maa ngi ciy am seede kon liggéey la boo xam ne Cheikh Ibrahim liggéey mat na que ñu nekk ci xadara bi bañ fi nekk nañu rafet njort rek xam ne taalibe Cheikh Ibrahim fu ñu munti nekk ñi ngi ànd ak loolu mu leen def ci ñoom liggéey bu sell boobu tukki naa ba Amérique fekk fa xali taalibe boo xam ne taalibe Cheikh Ibrahima lañu koy wax Khalifa Dia dafa niroog sa Khalifa Seck bi nekk Atlanta waaye fédér président fédération Ansaarudin bu États-Unis mu Al Hussein euh, Ba euh, daf ñu daan wax ne yéen de Cheikh Ibrahima Sall da ay yar ku leen gis teggin bi ngeen amee orma bi ngeen amee ci nit ñi waaye nag ak dundinu bëgg baay bi ngeen amee dafay gis yaru Cheikh Ibrahima Sall ci yéen ba sax da ngeen a niroog Cheikh Ibrahima Sall te yéen ñëpp sax da ngeen a niroo ndax yàlla dafa dogaloon maak xalifa jaag xalifa sekk yëpp dañ ñu daan xaw a di jaawale ma nga ba États-Unis taalibe boo xam ne la musul gisanteeg Cheikh Ibrahima jaxeran téléphone la jëlee ci moom wirdu mais jeex na ci Cheikh Ibrahima jeex goo xam ne fa tabaarakallaa bu gisoon kenn ci njabootam defe naa beneen mbir la man dama fa dem mu ne ma Cheikh de gisuma ko ci jaxaran téléphone laa jëlee ci moom tarbiya euh, wird ak li ma am ci moom yëpp di jokkoo ak moom waaye comme musuma ko gis nag tey dama bëgg mu dindi kaalaam ci ga benn guddi leetu xadri ne dama bëgg nga jullee ci kaw kaala gi ndax ma am julli Cheikh Ibrahima ci suma mbir ma ne ko mukk loolu ëpp naa def Cheikh Ibrahima moom man moom mënumaa julli ci sa kaala gi ñu nekk di ko xëccoo mu ne ma déedéet loolu laa bëgg mu ne wa ilaa kon boog ma lal ko fi ngay sujjoot nga ciy sujjoot ngir rek dëgg pour wan leen ne dama ni nañu rafet njort ci taalibe Cheikh Ibrahima yi ñëpp Cheikh Ibrahima defar na leen te li mu leen def ñu ngi koy liggéey fu ñu munti nekk noonu la ñu nekkee fu ñu mënti nekk fële ñu dem ci États-Unis bu ñu demee ñu jiital ñu ba ci jumaa ba nekk Indianapolis lépp ci njiital Cheikh Ibrahim communauté yi bu ñu amee problème muy murit muy taalibe Béthio muy tiijaan yi waa Tiwaawan ak xadra ba ñun la ñuy woo ñu àtte leen jox leen doxalin boo xam ne dañuy mën a nekkoo ensemble ndax Cheikh Ibrahim lool la ñu kon ci yooyu pour dire Cheikh Ibrahima liggéeyam feeñ na dañuy sant yàlla rek delloo kàddu gi nag ndax euh, ñun mën nañ ne ca tàmbali ba lañ fekkeewuñu tàmbali tàmbali ba tigi waaye itam ba ñu fi tegoo rek ca lañu yàlla baaxee ñu agsi baaxee ñu àndoog Cheikh Ibrahim Abbas Dieng mii bokk na ci ñi nga xam ne ñun ñoo fondé jumaa bii di masjid bi ak Cheikh Ibrahima Sall radiyallahu taala waxuma fondement tabax bi waaye biñ fiy njëkk a ñun ñoo ko njëkk a ñun ñoo fi njëkk lal basang ñun ñoo fa njëkk a électricité ñun ñoo fa njëkk a def làmp ñun ñoo fa njëkk a fexe ñu organiser foofu ba jullee fa biñ fay def Cheikh Ibrahima bëccëg ci waxtu wi ànd ak maam Mariama Cissé Abbas Dieng Mansour mbooj Maguette Mbaye ak Abdou Karim Mbaye Iba Diallo ñooñu ñoo fa nekkoon ñu taxaw Cheikh Ibrahima taxaw leen fii am ak ñaan yam fa def kon ca tàmbali ga ñi ngi fi woon Cheikh Ibrahima noonu lañu àndee moo amatuñu woon guddi amatuwuñu woon bëccëg ndax itam yàlla xiir nañu rek yar ñu ci ñu mën a ànd ak lii nga xam ne kii nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Sall te itam wax dëgg yàlla euh, lépp luy wiraasatu ci Cheikh xal islaam Alhaji Ibrahima Niass gis nañ ko ci moom te bëggloo nañu Cheikh Cheikh al Islam ba doon wax xadara bi fexe leen taxaw di jël pàcc ci organisation wu Ansaarudine ca gàmmu ya muy Medina wala muy Tayba wala muy feneen wirasatu Cheikh Ahmad Tijaan loolu kenn wéretewu ko am nañ ci firnde yu leer naññ naññ naññ fa tabaarakallaa axsanal xaaliqiin euh, weeru koor bi passé rek euh, du moins gannaaw weeru koor bi rek maa ngi woon Maroc phase daje fa koo xam ne mook Cheikh Abdou Ndaw bu Cheikh Mahi la waaye Fass lañ daje mu may wax ci Cheikh Ibrahim loo xam ne mosul woon topp ci man koo xam ne kon liggéey Cheikh Ibrahim yaatu na waaye taxawaay yonent salaay salaam rek la taxawee woon boo ko xoolee ci lewet gi ak ni mu taxawee njaboot gi nga xam ne lépp da nga koy gis ci yonent salaay salaam ci njàngaleem nag ci taaj al jaami lil usul fi ahadis rasul salaay salaam lépp méngoog moom kon ñun tey bisu sant yàlla la di ci sant nag ñi nga xam ne ñoom ñoo sabab bii di jataay muy xale yi xadra bi di ànd liggéey cheikh al ibra cheikh ibrahima sall radiallahu taala anhu euh, ni ko cheikh tidiane waxee la mouhamad lamin sunu sëriñ mu ngi ci leen biir waaye xadra bi yëpp tamit jox leen confiance jamono bu nekk laaju ñu leen ci ni ñuy organiser laaju ñu leen ci nii ngeen di doxalee waaye ndax li ñu itteel rek mooy bisu cheikh ibrahim li ñu itteel mooy am occasion wu fàttalikuwaat dundaat ci mbiru Cheikh Ibrahim ba buñ ca wax ci moom danoo jafe waaye daam liggéeyam matale na ci seede borom xam-xam yépp nag alaaji Abdoulaye Ibrahim ñas al Khalif moom seede bi mu seede Cheikh Ibrahim ci liggéeyam bu rafet demoon na ba képp ku bëggoon sóobu ci biir euh, xadara Cheikh Ibrahim ñas moom alaaji Abdoulaye Cheikh Ibrahima lay bind bataaxal boole kook taalibe bi ne ko ñëwal fii ndax ci moom rek la moom moo ko daan wax Cheikh Ibrahima rek laa gis Cheikh Ibrahima Sall moo fi deseeg taxawee yoon bi bàyyi daan doxalee te teggiwu ci dara te yokku ci dara moo tax ku daan jokk ci moom alaaji Abdoulaye Cheikh Ibrahima Sall day bind bataaxal ne la demal ci Cheikh Ibrahima Sall te yaakaar naa ne ñu bari ñi ngi fii ñoo xam ne ci njaboot gi te noonu lañ ñëwee ci kii Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima al bi nga xam ne moo toog tey daje nañu gàmmu Njolofeen mu jóge ba Mauritanie ñëw directement gàmmu Njolofeen ñu jox ko kàddoom pour mu ubbi jataay bi mu waxtaanee gàmmu googu yëpp ba ba muy ñibbi di waxee ci muqaddam yi nan lañu ñu war a mën a taxawee taxawaay bu rafet ngir yar jaam yi te misaal bi yëpp ci Cheikh Ibrahima sàll la ko doon joxe Cheikh Ibrahima nga toog ba mu paree la gàmmu googu jeex loolu ci. cédé Cheikh Ahmed Tidiane al Khalif bëggoon ko lool nak fa tabaarakala ndax daan naa ànd ak ñoom fu ñu musaan dikk du am xa fu ñu egsee rek dañuy daan dugg ba ci Cheikh ahmed Dam bi mu demee ba tëdd ba feebar nga xam ne kenn daawatu ko gis waaye Cheikh ibrahim la wax soxna Sophie Sophie Ndiaye ne ko su Cheikh Ibrahima agsee rek bàyyi ko mu dugg ñun tam dañ daan dem ba kaw Kaolack ñu téye ko foofu Cheikh ahmed Dam ne bàyyi leen njaboot Cheikh Ibrahima Sall yi am na yu ñu doon wax ci Cheikh Ibrahima yoo xam ne mënuñu ko sax wax ci ci ci mbooloo Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop moom dem na ba fii la bokk ci asid xaw saadiqin bi mu génnee àdduna moom Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop ñu dem di ko jaale njabootam njabootam yi ñu ñun dañoo waroon ñëw asid saadiqin jaale leen Cheikh Ibrahima Mahmoud job ndax sun papa daf ñu daan wax ne ci asid xaw saadiqin la bokk ñëw na fii ne Cheikh Ibrahima maa ngi fii fii laa bokk ñewna fi laylatul qadr ni dama bëgg bokku ci cliché bi ñewna fi wax ñu ci digg ci bisu jotaay dars ne Cheikh Ibrahima Niass su doon wëraat daayira bu muy nekk fi lay bokk mom Cheikh Ibrahima Mahmoud job ma nga ci dëgg ñun ñi ngi fi waye li ñu wax rek ci seede pour wax rek ne mag ñëpp borom xam-xam yëpp sédel nañu Cheikh Ibrahima Sall liggéeyam bu rafet ci fayda bi liggéeyam bu rafet ci tariqa bi ak liggéeyam bu rafet ci lii nga xam ne moom mooy islam donc euh, bëri na fu ñu dem ñu jiital ko kuréelu jamaatu ibaadu rahmaan yi fii bu ñu daan def tamxarit seen conférence bi fii ci pharmacie golf nga xam ni ñu mel Cheikh Ibrahim dundee ni yeneent daan dundee xeet wi ci mën a maslaha ak ñoom mën a nekk ak ñoom ci anam bi gën a rafet tax na bu ñëwaan ca jataay boobu moom lañ daan jiital ci seen julli tisbaar googu moom Cheikh Ibrahima Sall te ku xam jamaatu ibaadu rahmaan mel ci mbiru Euh, tarixa yi kon loolu yëpp mu nekk loo xam ne rek ci gàttal dafay wane rek ne kii ñu yàlla boole loon wax dëgg yàlla euh, ñun dañuy sant yàlla wax ne dëgg-dëgg am nañu la dëgg-dëgg euh, rëcc ñu wuñu li ñu demee ci moom bu ñu demee ba suñuy jur suñuy njaboot suñu askan ñëpp def ziyaara di gërëm Cheikh Ibrahim ndax li mu def ci ñun loolu sant yàlla la te fu ñu dem ba léegi nii bis nii fu ñu dem ñu jiital ñu te xam ne ñu ci liggéeyu Cheikh Ibrahima rek la yàlla defee loolu kon fa tabaarakala ahsanal xaaliqiin euh, suñuy wax bu yàggee suñu xool dana tooy te itam ni ñu jeexee ci Cheikh Ibrahima la mu <coughs> musuñu am benn gendiku gendiku bu dul euh, ñi ngi rek jokk ak Cheikh Ibrahima fu ñu munti nekk nag fu ñu munti nekk ba bu ñu demee feneen ci yeneen xadara sax bu ñu ñëwee ñu ne ñu jiite leen fee ma nekk dama ñëw ca jàkka ya fu ma ci dem ci jumaa ñu ne jiiteel ndax fa la Cheikh Ibrahima rek lañuy gis ci liggéeyam ci ci ñun kon yàlla nañu yàlla dool di tawféex ñu ngi gërëm ànd liggéeyal Cheikh Ibrahim lii buñ ci jóg ndax itam lu ñu waral Cheikh Ibrahima la ni ki yeneen yi nga xam ne du ñu jeexal mukk te tudd leen muy liggéey bi nga xam ne bu am solo bi nga xam ne imam Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye mi ngi koy continuer ci liggéey Cheikh Ibrahim ni nga xamee ni tam du jeexal mukk lu dul tuttu kii nga xam ne mooy Cheikh Saïd Sall al Khalif mi nga xam ne moo njabootee njaboot gi njaboot asir sadiqin ci taxaw bi nga xam ne taxawee na ko téye lii nga xam ne mooy mbiru Cheikh Ibrahim kon yal nañu yàlla doole dëgëral euh, dolli ñu dolli dool dolli ñu tëbb ci barke Cheikh Ibrahim su ko defee liggéeyam mën a wéy ci jamono bu nekk ci mbooleem barab ak ci mbooleem xaal والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته